maa ngi leen di nuyu ci ci turu sëriñ muntaqa ayadahu llahu wa nasar wa xafidahu wa satar wa rahima salafahu wa gafar may jé may may jëme ci yéen kàddu yi ci ndigalam di ko tàmbalee ci sant gu sant ci seen taxawaay ci fàttaliku ak fàttalee julli gi sëriñ bu mag bee mag julli woon ci géej gi mm-hmm. fàttaliku ak fàttalee léegi day aju rekk ci bis bi mu amee woon waaye jëmmi xew-xew bi moom masi si ko fàtte te doona lu ñuy fàtte incha allahu ila yawmiddin ndax day benn bu amul ñaar benn la bu amagul ñaar ba àddina sosoo ba léegi yàlla jagleel ko doomi Sénégal jii di Cheikhul Xadim Abdillahi wa Xadimi Rasuli ak amam ñaareel nekkul lu jomb xam naa waaye man de séentuwuma mu masa yàlla mën na lu ne waaye du lu man lu ne def ko te lu te du lu def lu ne it faaw mu defaat ko nu war cee xame fi sëñ bi tegoon julli bi sifatiha bi sifati solaati ahamma arkaanil islaam wa awwala ma yusalu anhu alabdu yowma alqiyama wa bi annaha tanha an ilfahshai walmunkar donc bi gën a dëgër ëpp solo ci lislaam bu lislaam doonoon garab nu mën a wax ne julli juróom ñooy ay reenam leneen soo ko doon la mi doon garab nag bu reen ya maxee la cee topp xamees na jeneen ayib juréy june it bu ko dalee nam toll rek na lay feeñe ca la ca des moo tax Seex Muntaxa bëgg na nu xam bu baax fa sëriñ bu mag bi tegoon julli ba bu jotee lun man di ne nu bokk ko ba jooxe ko ba noppi ni ko sëñ bi daan defee rek ab sëriñ weesuwul di royukaay rek roy ko mooy jokkale bi mooy jokkale taaliba bi ak moom boo ko royul jokkoo amul kon nan ko roy ci fonk julli ak laneen lu baax lu mën di doon sun kem kattan roy ko ci bañ safaan bu mën di doon di ko tuub di tuubit safaan bun masa def te fas yéene bañ caa dellu ba faw ku sax ci tuub bàkkaar moo ku musa def bàkkaar ñooyam ba sun jokkoo ak moo mën a sax tàggoo bañ a am ilaa yawmi diin nu bañ a bokk ci ñi muy yëlbu wala sëlbu wala dakku ni ko seex mu seex Muusaa Ka nettali ni bëggee nu xam fi sëñ bi tegoon julli nii la bëggee nu xam fu nu war a teg sëriñ bi ñun ak nan lañ ko war a jàppee ñun taalibe yi ngir nu xam loolu ngir nu xam loolu dañuy dem ci mbindam gëstu ba gis nu mu xamlee boppam ndax moo gën a xam boppam ku dul moom gannaaw yàlla al alimil mbindam nag géej la ku ne ak xam ca mën a yem waaye ma ni su ba jeexal ko gis nan nag mu ne man zanna anni xayru abdillahi wa xayru xaadimi nabi fasaahi te mooy ku jort ne doon naa lu dul jaamu bu yàlla ak liggéeykatu yonent bi ku juum la lii sëriñ bi mag bee ko wax te muy lu leer naññ di muhkam in saxa taabir amul kii di ko déggee nii keneen di ko déggee na neen wax ji ak ju demee nii ci leeraay te mbari lool ci mbindam ak ci liñ koy nettalil jële ko ci mag ñu wér ci la xamee sëriñ bi ci lañ koy mën a xamle it xam ak xamle yu wér nu war a góorgóorlu ba xam ci lu bari te bañ di tànn ka topp mutashaabihaat yi ci yim daal di yaaleeg boroomam ak di ko sant ci mayam te xamuñu ci dara lu weesu pirum kaw ma di ko jéem a firi lay sabtiro an lil fitnati aadatan walakin talaban lir rizq ñii firi mutashabihat yi ci liñ gis mu koy firi ci kaw gi ci saayir nekki may yi ko boroma may te muy ëpp bopp nitu kese ci firim saayir mi ñaare duñ ca duñ ko def ngir wut fitna waaye ngir feesal seeni jibar di njariñ lu rëy lu teew waaye jëru ko nag ci ñoom ak luñ ci man de amee waxoon luy mën a amee ngërëmul sëriñ bi moo gënoon ndax day jur terangay àddina ak ju àllaat waaye day laaj nag ak sellal ak bañ a yàkkamti ndax yombul te lu yombul lu néew lees koy amee ci lu yomb ci tawfiiqu yàlla waxi sëriñ bi da cee am yoo xam ne moom rek moo xam lam ci jublu xanaa ak kum ko xamal ak kookee kum ko xamalaat wala ak xam leen law beeg ci moom kon ci digganteem ak yàlla nee na weesul di jaamam ci ci digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na weesul di liggéey katam te ku jorti ne doon na ci ñaar ñii lu dul lii mu wax ci ñoom rek ku juum la radiyallahu anhu kon li mu bëgg nu fas ko ci moom mu doon ko ci digganteem ak ñaar ñii di borom beeg jaam bi mujj yónni leeral na ko mu leer nañ nu war ko koo nangul nag bu fekkee ne tuddoo gin koy tuddoo wér na ci nun nekk nan dëgg dëgg taalibeem te wala ci di def ay ndigalam kem kattan di bàyyi ay tereem ndax lu ci ne mi ngi dellu ci ñaar ñii yenn du ci génn yooyu alxuraan ak hadis lépp it di ndigal yàlla rek ak i tereem xaqiqatan boo ko seetee ba ci biir ndax moom rek mooy buur moo sañ a digle moo saña tere azza wa jal yonente bi sallallahu alayhi wa weesul rek di jottali ay ndigalam ak i tereem wa ma yantiqu an il hawa in huwa illa waxyu yuha allamahu shadidul quwa ci gàttal nii mooy nin ko war a jàppe ak li tax ni war a topp ay ndigalam tey bàyyi ay tereem ku dem ci taalifam am ca lu ko doy lii laa doon jottali ci ndigalul sëñ bi te jëme ko ci murit yépp nag ku ne Touba ak ku ne faneen gannaaw nga xam ne ab murit fu mu dem waa Touba lees koy xoole di séentu ci moom li jaadu ci ku dëkk Touba mel ni ba bañuy gis lu woteeg loola kon fu mu ne war naa jàpp ne Touba la fa nekkal kasafiir dib ambassadeur lu jëm ci jéye ji fi am tax ba julli gi mel nii te bokkut ak nam daa mel daj àddina béppit mi ngi ñaan yàlla mi wàcce jàngoro tey wàcce saafara mu wàcce saafaraan te agale ko fépp te tafal ci xéewal bu daj fépp kem ni jàngoro ji daje fépp waaye feeg booba moo xam jege na walla sori na te yàlla na doon lu jege ñi ngi nuy sant nu sax ci wattandiku ak topp laa ñi yàlla xamal ak sëf ci wet googu di wàllu wér gi yaram feeg maa ngi man li ñuy wax ndax lu jaam bi di sàkku ci yàlla da ko war a sabablu te lii bokk na ci nin war a sababloo tàggoo mbas mii ànd ak ñaan yi nag dara ëpp ko ci solo gannaaw loolu maa ngi sàkku ci bis bi ak njéggal ci ñëpp lu ma yëg ak lu ma yëgul incha ku ñëpp jéggal rek yàlla jéggal ko ndax moo ëpp yërmande ñëpp dàq jégale ñëpp ci lépp bañ na ko ba moo bind yërmandeeg luy yërmande ak njéggale lépp luy jéggale te dana ci yokke wér dana ci yokke wërsëg dana ci guddalu fan innahu huwa alxalimu al afu wal gafuru rahim afa allahu anna wa ankum wa gafara lana wa wa rahimana wa rahimakum